Biz la Ousmane Sonko dàq na déclaration de politique général bi ba jëmmi jamono critique mi nu ko yeggee ci xëtam gu njëkk la mu ca jàpp mooy Ousmane Sonko jël na voie de contournement ba maanaam wiiri na yéenekaay bi ne wiiri wiiri googu nag la ko waral mooy premier ministre bëggut a janook assemblée boo xam ni amu ca majorité tey risque yi bu defee déclaration de politique générale am ba pare ñu dóor ko motion de censure yéenekaay bi ne moo tax it gannaaw amul benn délai bu ko tënk fi mu ne dafay doxal ba keroog ñuy tas assemblée nationale ñu tëggaat élection yi am majorité mu soog dem janook député def déclaration déclaration de politique générale bi ñëppee xaar Abdou Mbow ca boobaleb yéenekaay naan bu ñu tasee assemblée nationale bi parrainage bi dana poser problème ngir ñu tëggaat yeneen élection soppar ñëwaat parrainage boobu ak ni ñuy financer parti yéenekaay bi ne société civile bi yëngu ci wàllu élection waxtaan na ci ba tëgg ca livre blanc ñu des ak Abdou Mbow mi ñu l'Indépendant ak yeneen yéenekaay yégal ne bind na bataaxal di question écrite docteur Cheikh Tidiane Dièye docteur Cheikh Tidiane Dièye ci loolay xeeñ ca ONAS di scandale moom docteur Cheikh Dieng ca enquête ña ngay raggaw deram ba mu set gannaaw ba nu ko ca bopp ONAS yi yëkkati tuuma teg ca kawam dàq googaak la ca laxasu moom la bëgg a leeral ba cay xeeñ moom la député yi farang Macky Sall mi gind ci askan ak Guy Marius Sagna fi ne ñoo yëngal ministre yi bi ne luy tolloog fanweeri question écrite yóot nañu ko gouvernement booba ngir mu andi leeral ci yenn ponk donc Guy mari Sagna l'info ne mi ngi tanku ci defarum logement sociaux yi ñuy jox waa Chine wacc entreprise au Sénégal yi l'observateur mi Guy Marius Sagna kay liko ko naqadi 9000 logements sociaux yi nga xamni chinois yi lañu ko jox ngir ñu defar ko wacc entreprise au Sénégal yi ñu tontu ko ci bobale bi yene kay ne ko entreprise au Sénégal yi li seen jafé jafé moy dañu tuti ba amuñu esprit solidarité Manam, duñu boole seeni doole ngir mëna a liggéey liggéey bu mu ci ayib ku ne day beru wétam té ko ca jox liggéey mënu ci dara bis bi le jour ne lola nak Guy Marius daf ca bëggi firne bëgg it ñu indil ko cay leeral waxtu woowa ca boobale bi yéenekaay Amadou Ly Akile di indi leeral ci contrat bi dox diggante Sénégal ak West African Energy njiital Akile dal ci kaw bi tey Samuel Sarr ak ñañu àndaloon ca boobaleb contrat nee na contrat booba di contrat bi ñaar fukki at ak juróom amul benn appel d'offre taqal na ca itam njiital Sénélec ba woon Pape Toby Gaye ca yor yor bi it Amadou Ly Akile yooyale tuuma a yëkkati teg ci kaw gaay Macky guerre bu dafa am ci marché yi Ecotra yi jot le quotidien naan Abdoulaye Sylla ak Ecotra dañu leen xàllal yoon ca jam ñaajo ngir liggéey yi soxal VRD bi booba jamono ca point actu ñuy indi leeral ca coow la ca semi ak docteur Cheikh Tako Diop mu ñu ne waa APR ki mbokkam la jël tabb yéenekaay bi ne moom docteur Cheikh Tako Diop ak daaf ba di Awa Fall ña nga xamante ca ministère de la santé seen mbokkoo it bu dee am na journal bi ne lu sore la docteur Mamadou Selil li yéenekaay ba ne ma nga ca semi 2016 ba tey te kooka journal ba ne yi yéenekaay bi ne dañu koo taggee fu ne ngir maandoom mën liggéeyam waaye itam jubam loola waral ñu dénk ko gestion finance agence booba Baka Madior Fall mi rak ci Ismaïla Madior Fall yéenekaay bi ne docteur en pharmacie la ñu ko recruter ca CMI googa atum 2016 ba tey premier bet mi dàqi liggéeykatam ndax ne dafa def banqueroute le témoin ne du dara du ca dëgg yéenekaay bay laaj ndax yëfi du banqueroute frauduleuse journal bi ne Joris Denkan moom bu doon da doon parier mën na jàpp ne ñàkk na moom jiital bi ñu jàpp ci aéroport mu doon daw ak njabootam yéenekaay bi ne ko tegee loxo yëkkati na ñaar fukki million ak benn ci téeméer ak ñaar fukki million yi ko fisc doon laaj waaye waxul dara ci fukki milliard ak ñaar yi ko DGID doon laaj te mooy ay TVA yu mu encaissé ba nuppi dama ci poosam journal ba ne patronam di Frank Attal te ñu jàpp ko ci mbiram Big Million ma ngay def kéemtalaay kàttanam na ngir génne ko ci góota gi mu ne ay agent wu pari foot yéene kaay ba ne ñoom dañoo daw ak la ñu mujjee jaay muy recette yu am ca premier bet googa yéene kaay bi yéegee ñu li tukkee ci enquête bi ne moom directeur général ba bëgg njabootam la mu wax mooy jabarama tiit c'est ma femme qui a paniqué yéenekaay bi ne premier bet googa ba mu jotee notification wu fisc ca la tàmbalee jaay alalam muy bien mobilier ak yépp dàq yi liggéeykat ya contrôle ba fa fisc doon def nag yéenekaay ba ne dañu caa toftal fukki million booba lépp contrôle itam wone na anam gu garaaw gu ñu doon forodee enquête dig ba it yéenekaay bi ne fësal na beneenu scandale bu amoon foofa blocage compte bancaire yi pression fiscale ak suspension convention maanaam convention yi nuy dakkal yéene bi ne presse baa ngi fat te ci faatu la jëm léegi ko ne boobale presse kay ñi ngi koy fatteefu ne teg ci kawam fisc TNT dakkal convention yi ba nuppi nag mbiram aide à la presse yi kenn waxatu ci journal bi ne loolaa waral patron de presse yi jàppum daje àjjuma ngir waxtaanee jafe-jafe yi kap moom di artu naan lii bu dakkut yeneen yéene kaay danañu tëj Cheikh waxtu woowa ca les di wax itam jafe yi wal fa am yégle ni danañu ubbi capital bi may mën a nduur fay yéene ba ne indi nay leeral Sénégal ci 7TV manu waxoon ne dañu koy tëj ak dafa amee jafe-jafe ba nuppi plainte Cheikh Bara Ndiaye ma ko wax enquête ne presse bi kay ci natt bu rëy la ne jafe-jafe yii ne kaay ba ne boor bu la jóge te foo ko natt ci tar weesu na ko Mamadou Thion njiital koret ne ci ay base yu leer la ñu war a demaatee Alassane Samba Diop directeur général E-Media ne ñépp a ngi ubbi seen gën di seetaan ñuy faat presse bu Sénégal te kenn waxu ci dara xalif général des murit moom wax na démb réew mi ko quotidien ci màggal gi la doon wax xàll yoon wi joxe ndigal ngir xew-xew booba am ci anam gu mucc ay le ndigal yi xalif général des mourides joxe bés bi le jour tuddee ko les fortes recommandations de Serigne Mountakha ngir jàmm am waaye itam màggal gi jaar ci yoon Moustapha Guirassy jamono jooja yéenekaay yu bari dinu yëgal ne doxi woon na tànki jàmm démb ca archevêque bu Ndakaaru l'indépendant ne Ousmane Sonko ko yónni gannaaw coow li amoon ci muuraay gi te yëngaloon penc mi waral enquête ne Sonko désamorcé na bomb ba fay na sagar gi doon xeeñ digganteem ak église mu yëkkati yi ñu des ak moom Sonko source am mi ñu waaye itam ay représentant secteur informel bi yéenekaay bi ne keroog nag Sonko mer ba futtu la def la ko waral mooy ndaje a amoon dimanche bii ñu weesu ca këram njiital Pastef dafa yëg ni am na ko lakk di brûler troisième degré waaye itam keneen koo xam ne bal la nu ko dóor ci bopp te ba tey ñu am jafe-jafe ngir faju faju gu mucc ay journal ba ne mu mer ca loola nag ndax li mu ko yëgut ba noppi jël dogal ñaar ñooña ñu yóbbu leen bitim réew faji leen kenn ka sax ba ne Chine lañu koy yóbbu Sonko nag yéenekaay bi ne dalal na xelu ñooña loru woon ci nguuru Macky Sall ni leen lépp lu ci war yoon dana ko def nag faaw ngeen def ndànk ndax am nay procédure yoo xam ne it faaw ñu sàmmonteeg moom le soleil di xamal ne bëgg sàmmonteeg autosuffisance alimentaire maanaam am ci dund gi lu doye moo waral nguur gi jëm ci taxawal brigade de sécurité bëgg gën a ñoŋal dundinu askan wi Cheikh Tidiane Diouf bokk ci athlètes yi teewal Sénégal ci Jeux olympiques Paris 2024 bi di l'observateur ak yeneen xamal ñu ne def na record bu bees la teggi ne record booba ba fa Amadou Gàkku tegoon ëpp na juróom fukki at léegi Balla gay 2 mi CNG convoqué ëllëg lése ko naan ñu du ca dem ndax newut ci réew mi waxtu woowa màng 2 di àtte coow li diggante Modou Lo ak Balla Gaye 2 ci kuy roi kuy empereur ñun foofa la ñuy taxaw ñaanal leen kenn la jàmm dig daje ëllëg incha allah